curuutu sihati daal sarti wér ga allati sart ya nga xam ne madat wéyoon nañu ci junj ci junj rek wéyoon nañu ci kaw ne am na fa xam sat juróom lañu aydan ba tey xalaamaa ci la nga xam ne xat sabate sax na sart yi tax julli ga wér dañu waxam ne la am nay sarti yu koy tax a wér te waxaguñ ko woon nee na juróom la taxaaratun ak laab mudaafatun guddi guñu wéer lil xadasi jëm ci am toj boo baax daxaa nekk na ci gannaawam taxaaratun laab guñu wéer moom it lil xabasi jëm ci jëmmi sobe nee na yaari laab yi da nga leen wàññi ku ne benn laab ngay boole xadas tudde ko taxaaratul xadas ak laab ngay boole xabas tudde ko taxaaratul xabas laabu xabas moom mooy bañ a julliwaale jëmmi sobe ci tey ba noppi mën a tàggoog moom xam ne kon bala ngaa julli dañuy sart saw yaram ak sa yére ak fay tax fa ngay taxaw di julli dara bañ caa am sobe su fekkee tëlee tax nga julliwaale sobe mbaa fàttee tax mu julli ga dana baax waaye wax ji gën a wóor mooy boo ko tayee julliwaale ko te mënoon naa ñàkk moom da nga koy baamu faawu faawu julli ga du baax yooyu wax moo gën a wóor laa bu ko xades nag mooy bu ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata waree mu sangu farata bu fekkee yaara mënu leen nga xam ne farataam mooy tiim mu tiim temps yi soo aj ñetteel seen istiqbaalu bayti yi mooy jublu néegam ba alxaraam yi ba di buñ ormaal sarf ñetteel bi mooy jublu xibla xibla nag mooy boo nekkee màkk ak la ko wër da ngay jublu jëmmi kaaba gi bu fekkee nekkoo màkk nekkoo la ko wër nag wet ga nga xam ne fa la kaaba nga féete nga julli jëm foofa loolu mooy jublu xibla itam sart la ci wérug julli gi ndegam fàttiwoo ko te mën nga ko wa suturu xawratin ak suturaal awra sàng awra bu dee góor moom tàmbale jumbax ba ci bëtiwoom rek mooy awraam bu dee jigéen nag lépp awra la ci yaramam ba mu des kanam geeg teng yi sàng awra joo ci lu tal ba tey bokk na ci sarti julli ndegam mën na ko te fàttiwu ko watarkun akuk bàyyi lil kalaami ñel wax bi tarkikum ci seenuk bàyyi li kulima ashxaalin ñel mboolem ay soxla li rabbikum ngir seen boroom wa kasratil afhaali ak bari jëf ya bokk na ci sarti julli yi nga bàyyi lépp lu dàqoonteeg julli mooy lépp luy tee julli gee baax rek muy wax wax ju ci bokkut mbaa jëf-jëf yu bari yu bokkul ci julli ga yooyu yépp da koy bàyyi ndax bu doon julli di jëf-jëf yu bari yu bokkul ci julli julli gi yàqu ni ki muy julli dox ba ca kanam mu arrière ba ci gan ba ci gannaaw di ko def ak defaat loolu buy bari rek julli gi daal yàqu mooy jëpp jëf ba ci muuñ sax bu ñu nee julli muuñ wàññiwul dara sax boo muuñ yi baree ñu jàpp ne jëf ji bari la ju bokkul ci julli gi mu daal yàqu faslum bi ab dog la fil adani ci noddu wal iqaamati ak liqaam mi ñëw nag ci nodd ak liqaam innal adana naka noddu sunnatum sunna la mu akkadatin buri buñ feddali di kulli masjidin ci bépp jàkka wuqiitum yàlla na fegaleef leen mafsadatan ab yàqu-yàqu wuqiitum mafsadatan daaneel way la ak ñaan la yàlla na leen fegal ab yàqu-yàqu daa wax ne noddu sunna su dëgër la ci fépp fu néegub yàlla nekk rek doonte jàkk yi daa jege itam luñ jegee jegee rek bu waxtu julli jotee ñu noddu yëgle ne julli ki jot na loola sunna su dëgër la wa xamsatul ahkaami juróomi àtte ya taatar yi danañu ko gaar siwal ibaaxa ndara ibaaxa ibaaxa ak daganal lay firi xudoo jàpp leen tambihi sama yeete nodd goo xam def ga ak bàyyi ga ñooye moo amut waaye boo weesoo googu rek moom am na nodd gu war am na gu araam am na ku ñu sib am na ku ñu soog moom lay bëgg a wax moo tax mu ne wax yee ñoom alwujoobu moo di war ga wal karaahatu ak sib ga alxaraamu ak aji araam wal nat bu ak sopp ga wa tafsilu teqale ga nag yi at yi dana dikk fi nizaami ca way wax kon nee na boo génne ibaax yéen tey des kon am na nodd gu war mënta ñàkk am na nodd gu ñu sib nga xam ne bañ ngaa def moo gën def ga am nodd gu araam nga xam sañu su koo def am nodd gu ñu sopp nga xam def ga moo gën bañ ngaa def mooy safaanu bañ sib yejj bu dana war moom noddu fil misri ci njënde kifaayatan ngir muy fardu kifaaya nee na bépp dëkkub lislaam bu mag rek fardu kifaaya la bu waxtu julli jotee ñu dégg nodd jib fa mu wane ne ñooña ña nga ci lislaam génnuñu ca waaye dëkkub lislaam bu mag waxtu julli ñëw te dégguñu fa genn genn noddu day nuru ak génn ci lislaam moo tax fardu kifaaya la dëkk bu mag moom lu mu néew néew rek dafa am noddu jëpp bu waxtu julli jotee kama sunna ni ki sunnaaleef ko kifaaya te mbir muy kifaaya li masjid ñeel jàkka sama ju yëkkatiku na ni mu amee ci farata nga xam ne am na faratay jëmm ju ne am fardu kifaaya nga xam ne bu ca ñenn ñi taxawee rek mu doy bu ko ñëpp bokk yi bàyyi ñëpp bokk am bakkaar noonu la amee itam ci sunna yi dana am sunna boo xam ne kenn ku ne yaa koy defal sa bopp waaye kenn mënu la koo defaale mel ne buñ ne jullig wetar maanaam rakka wetar buñ ne sunna la kenn ku ne moo koy defal boppam kenn mënu caa yóbbaale kenn sunna kifaaya nag mooy lu mel ne nodd mi mu wax jàkka ju ne bu waxtu ji lu jotee rek ñu nodd fa sunna kifaaya la mooy bu amee ku nodd rek dal nay doy waaye nag waruñoo seetaan néegub yàlla waxtu wa jot kenn kenn yëkkatiwu fa ak nodd jamaaxatun mbooloo tatlub moom dana sàkku xayraxaa kudul moom walaw fii safarin ak doonte ci tukki la sunna sunaa leef na nodd laxaa ñeel ko fii maa ci la nga xam ne rawaw nett nañ ko nee na mbooloo moo xam ne ñu dajaloo ci béréb te jàpp ne ne buñ noddee faaw dana am kuuy si moo xam ne ñoo nekk garabu penc moo xam ne ñoo nekk ci marché ba moo xam ne ñoo nekk ci tukki ñoo ci yemoo fekkee mbooloo mi jàpp ne daal moom bu noddee am kuuy si rek moom kon sunna la ñu nodd bu dee mbooloo moo xam ne jàpp ñu ne kenn dara wuy si nit ki ñañ tëj kaso nag ñu nekk ci kaso ba waaw ñooñu moom kon duñu sunaat ñoom ñu nodd su ma nuddi ba topp soppeef na ko li ma ñeel koo xam ne fii safari nekk na ci ëpp tukki lam yat talit mbir moom sàkku wut si waaxu gudul moom fas dan mbir moom yi kenn aw jamaaxat wala muy mbooloo kuy tukki muy kenn muy mbooloo ñoo ci yam te it dañ ko tudde tukki rek waaye génn sax dem ca tool ya wala muy sàmmi yépp ci la bokk daañu sopp waxtu ji lu jotee rek moom moomee ci tukki ba mbaa moom moomee jëm ca tool ya na nodd rek nodd ga lu ñu sopp la moo xam kenn la moo xam mbooloo la saa yu xasee génn daal bëgg nañ fu ko waxtu ji lu jotee doonte xam na ne bu noddee kenn du ko wuy si it rek na nodd nodd ga lu ñu sopp la kon nodd gu ñu soppa ngoo ko waxaramahu araamal na ko man ka nga xam ne yuf ci dana ubbee ubbee mooy tontu laaj tey ci wàllu lislaam araamal na ko li siwas sabaaxi ñeel kuddul suba xamal waxtu njëkk waxtu wa wali nisa ak ñeel jigéen ña am na yaari nodd yoo xam ne yu araam lañu genn ga mooy nodd te waxtu wa jotul a nodd da yëgle ne waxtu julli wi jot na kon nag boo ko defee te jotul rek wax lu amut la kooku araam na julli suba rek lañu maye ñu noddal ko nodd gu yeete te du tee sax bu waxtoo jotee dëgg-dëgg ñu noddaat noddu dëgg-dëgg ñaareel ba nag mooy jigéen noddu jigéen dañu bañ kàddoom yëkkatiku ba gis nga sax moom bu liqaam baa bu liqaamee da koy wax ca suuf kon jigéen noddu araam na wakkar yi xoofu sib nañu ko li salaati nafli ñeel jullig naafi la wali lët yi ak ñeel ga nga xam ne faatat raw na kama fi naq yi na mu nekk ci toxal ga kon nodd guñ sibangoo ko maanaam jullig naa fi la ba julli gu bokkut ak farat rek sib nañ ko ko noddal ba tey gépp julli goo xam ne waxtu xas na jàll dañ koy fay rek waaye waxtu wa jàll na sib nañ ko ko noddal amal jamaat daal mbooloo ma allati ma nga xam ne lam tatlub sakkuwul kaneen fi xadarin ci ak teew boole ji falam yun dapp soppeeful nodd lahum ñelle xam nga dangaa waxoon ne mbooloo ma moom buñ génnee di tukki moo kenn di génn tukki ñooye moo te tukki ba waxal nañ doon dem tool la it moom rek sopp nañ ba waxtu julli jotee nga noddu mu ne waaye mbooloo moo xam ne nekkuñu ci tukki te jàpp ne buñ noddee kenn dina ñëw nekk ni ma ko misaale woon léegi ci ñan tëj ca kaso ba waaw ñooñu moom soppuñ ci ñoom ñu noddu bi sharti in lam yatawaqaf ci sartum nag ndeem taxawut sàmm foofee i'laamu xayrihim yëgalu kudul ñoom bi ci ca moom noddu ga fa ni ama kon amul moroom lu may na nga xam ne dañ koo tàmm ñoom mbooloo mu di ko def ba nga xamee ne ñoom la ñu déglu ci xamee ca waxtu julli wa jot naam déet donte yow kenn nga ci sa kër tàmmuñ ngay nodd waaye boo xësee tamal ñi sa nodd ba yow la ñu déglu ci waxtu julli jotee da ngay doon doon kenn moo nga doon mbooloo ñoo ci yemoo fekkee dem nañ ba lay sukkandikoo ndax tamal nga ko nit ñi ci yëgle julli gi bu jotee kon say boo di ko def wana da boo sopp nañu xikaayatal azani nettali nodd ga li saami ñeel aji dégg la xoo ñeel ko bila tawaanin lu di yeex li muntaha shahadatayni ba ci yemukaayu yaaru seere ba ci yemukaayu yaari seere awal lañ ci ak njëlbeen tasniyatan ci ak ñaareel min xëy di tarjiyan ci lul ak deltoo jalaago feeñ na sopp nañ boo déggee ci nodd lu wax rek nga wax ko ba mu wax yaari ashadu yi wax bu jëkk bi bu ko tàmbalee wax waxu kawe ba nag waxu wax ba gën a kawe muy bu ñaareel ba nag nga bàyyi nettali bi bu dee ci yoonu Maalik moom ki nodd bu ne allahu akbar nga wax ko bu ko waxaatee nga wax ko bu ne ashhadu an la ilaha illallah nga wax ko bu ko waxaatee nga wax ko bu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah nga wax ko bu ko waxaatee nga wax ko bu yëkkati kàddoom ci kaw nag di baaguwaat ashhadu yi nag foofu ngay bàyyee yow foofu ngay bàyyee nettali ba waaye nag sopp nañ bu yëkkatee ashhadu an la ilaha illallah ca kaw nga wax ne shahidtu bima shahidta bih raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulah su yëkkati waatee ashhadu an la ilaha illallah yawit nga waxati loolu bu yëkkatee ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu sopp nga wax shahidtu bima shahidta bi marhaban bi habibi wa qurrati ayni muhammad ibni abdillahi sallallahu alayhi wa sallam bu yëkkati waatee ashhadu anna muhammadan rasulullah yawit nga waxaat loolu su waxee hayya halas salaah ñu sopp nga wax ne marhaban bil qaa'ilina adlan marhaban bisalaati ahlan wa sahlan su ko waxaatee nga waxaat ko su waxee hayya halal falaax ñu sopp nga wax laa hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim bu dee noddug suba su waxee assalaatu xayrum min an nawm ñu sopp nga wax sadaqta wa bararta wa ahsanta wa anta xayrul qaa'iliin su ko waxaatee nga waxaat ko bu ne allahu akbar nga wax yow it allahu akbar bu ko waxaatee yow it nga waxaat ko su daaneelee laa ilaha illallah nga ne laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir daldi julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te boo ko mënee defee assalaatu al ibrahimiyatu moo ca gën soo ko mënut noo jullee ci moom rekk baax na nga dolli ca nag allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبحذف مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد خير نوح وبحذف المقام المحمود الذي وعدته innaka laa tuxliful miaad wana da boo sopp nañu istiqbaala man jublu xibla ka nga xam ne yu azinu dana nodd illaa li ismaahin dara ngir ak déggle kama xadd bayyanoo naka ñu ko birale bokk na ci lañ sopp ci nodd booy nodd nga jublu xibla lu may dangaa bëgg nag wet yépp dégg ko kon mën ngaa wëreelu boo yëkkatee sa kàddu wax ci wet gee wëlbatiku waat wax ci wet gee doon ngaa wëlbatiku jëm soowu sax wan xibla gannaaw it waaye dangaa bëgg ñu dégg rek du wàññi dara waaye nag bu dee jamono yi nga xam ne rajo am na moom bu fekkee ci rajo ngay noté moom haut-parleur yi moom du aajowoo ngay mooy xibla mën ngaa jublu xibla ndax moom bu soobee yàlla kaddu gi dana sori nañ ko bëggee ka sayiti niki aji xumb kaddu murtafihin kuy aji yëkkati ko sayit dañoo jublu kii noddu kàddoom xumb te neexam mu ne boole yooyu yaar moo ci gën waaye nag bu fekkee ne kàddoom xumb neexut it te bu waxee baat na war a doon rek sunna si mu am na moo tax yéen ji wax nag mooy mu taxaw ci lu yëkkatiku tax bu taxawee ci lu yëkkatiku day tax kàddu gën a sori waaye loolu nag bu dee rajo yi nga xam ci ngay nodde bu dee ci rajo opérateur ngay nodde moom say boo taxaw fa nga taxaw du aajo ngay yëg ca kaw ndax bu soobee yàlla moom dana ko jottali waaye bañ daan nodd noonu nga xam ne yoroo rajo nag kon moom nga taxaw ci ay mbooluñ tegale ba leneen lu kawe daal mooy gan vi tuxurin ku di borom gu laab dañu bëgg booy nodd fekk nga amuk laab waaye nga nodd fekkul nga amuk laab du tee nodd ga baax sax waaye tàmmuñ ko waxaa yi mën tee aji taxaw illaa li aj li xusurin dara ngir ngànt ñu bëgg booy nodd nga taxaw te bañ a toog lu may da nga am ngànt nag taxawaay bi yomb la kon mën ngaa toog nodd wa jawwesoo daganal nañu azana ama nodduk aji gumba silmaxa ak noddam wàññiwul dara daga moom dana mën a xam waxtoo rek dara nekku ca wa kasaaniki ni taxaddudul mu addiniina li mukk way nodd ya uxi sa jàppeef na ko ñay noddu li mu ëpp kenn wàññiwul dara su fekkee du timis nag ñay nodd bu ñu limoo ñu kenn kennoo moo ci gën kee nodd daaneel jox keneen kee nodd daaneel jox keneen teewul nag mën nañoo àndandoo waxandoo waaye boobaa waaye nag su boobaa bu kenn déglu sama room dañuy bañ ñu def ko ne ni ñuy jànge njàngum yëkkati di bëgg seeni kàddu yemoo di daanoondoo déedéet bu fekkee daal dañoo àndandoo di nodd moom di waxandoo kenn ku nekk day jàpp sa noddu bopp rek fexe ba baat ya jub doo ca bàyyi dara dara wa jawwesoo daganal nañu ay doon ba tey tarattu bahum seenu toftaloo illaa li maxribin dara ñeel timis faqat dong indahum fa ñoom ni nu waxe woon léegi mooy noddukat ya bu ëppee kenn te du timis la ci gën mooy ñu kenn kennoo te bañ a àndandoo di waxandoo waaye nag bu dee timis moom timis waxtoom dafa gàtt la ci gën mooy kenn rek noddu su fekkee nag dañoo bëgg a def mbooloo ñaar mbaa ñett kon dañuy waxandoo rek benn yoon te kenn ku ne sàmm sa noddu bopp bañ a déglu sa moroom waaye bu ñu fa jàkkee bëgg a tegaloo ci timis kenn noddu jox kee kenn noddu jox kee rek mën naa am ñu yeexe timis ja min xamsatin tàmbalee ci juróomi nodd li xasratin ba ci fukk fi duhri ci disbaar wa fil xisha ak ci gee wa subi ak suba doona nukkuriñ ci lu weer bi nee na bu dee tisbaar ak gee ak suba moom li mu noddee mën naa mat juróom ba ci fukk te du wàññi dara wal xasru takkusaan jawwa sa taganal na laxaañeel ko al anjaabu tànneef ya jiima ñett li xaayin ba ci juróom xaalahu wax na ko alxataabu xataab takusaan moom nee na boroom xam-xam yi nee na mas na ko noddal di tàmbale ñett nodd ba ci juróom wa saaxibul madaxali boroom téere bi ñu wax madaxal zakara tudd na li zuhri ñeel tisbaar jawaasa xasaratin daganuk fukk li xamsata xasara ba fukk ak juróom nee na boroom madaxal ibnul xaaj nee na tisbaar mas na ko noddal la dale ci fukki nodd ba ci fukk ak juróom waxaal te mu wax fil xasri ci takkusaan wa fil xisha ak ci gee mina salaasa tàmbalee ñett li xarfil xaayi ba ci arafu juróom moom boroom ma daxal nag ba muy tudd takkusaan ak gee daa wax ni moom manees na leen noddal li tàmbalee yetti noddu ba ci juróomi noddu wa subu suba min suddusi yi mi ngi tàmbalee suddusam ba ak axiri bay aji mujj li matlail fajri ba ci fenkook fajar xalal mashhuri ci lañu siiwee suba moom day ñëw ci waxtu woo xam day fekk nit ñi nekk day fekk nit ñi nekk ci ay nelaw daañu taamu ñu nodal ko noddu yeete dañuy seet nag boo defoon guddi gi juróom benn xaaj bu juróom yee jàllee rek mu des benn xaaj ba boobaa daañu sopp nag ñu nodd noddu yeete bu ñu xasee tàmbali nodd nag moom mën na ñëwee rek di nodd di nodd ak a noddaal rek ba ba ñu àgg ci suba jot dëgg dëgg nag dal nod nodu salatu nodu wér ga ñu boole as-salatu khayru minan nawm wa jawwasu daganal nañu jamhal mu'adhdhinina boole way nodd ya fi maghribin ci timis wa khayriha ak ludul timis yaqinan ci lu wóor bi sharti an yakuna ci sartu bu nekkee kullu wahidin kenn ku ne minhum ci ñoom ala adhanihi ci noddom ga lil wahidi ngir yàlla mi kenn waxan nan ko mooy rek ñay noddu buñ ëppee kenn muy timis muy geneen mën nañoo daje waxandoo benn yoon waaye nag kenn ku ne day sàmm sa noddu bopp te bañ a jéem a tollooleeg sa moroom wa sunnatul azani sunnas noddu fii maa ci la nga xam ne xadduma daa wéyoon na li maxribi ñel timis azanu wahidin mooy noddu kenn rek ridan ku di kuñ gërëm maanaam bu dee timis moom li ci gën mooy kenn rek noddal ko ñu daal di julli wa xawlu man waxi ka nga xam ne addana nodd na min baxl adaan ci gannaaw nodd ga naa xadarat teew na asalaatu julli ga loolu bidaxatun bidaa la tuhaanu boobu def na ko doyatal nee na mu nodd ba àggal naa julli jot na xadarit salaatu bi mu noddee rek wane na ne julli jot na ndax nodd bi day xam ne ne julli jot na kon nag nodd ba noppi di ci tegaat julli gi jot na wax yu mel noonu daal moom bidaa rek la wana xaw tere nañu xawlahoo waxam ja min baxdihi ci gannaaw nodd ga naa asbaha suba jot na aw aw wala mu naa ahla salaati yéen ñan julli baadiroo gaawantu leen laxaa jëm ci julli gi ba tey nee na gannaaw bu noddee ba noppi bu cay teg naa suba jot na de suba jot na de lu mel noonu sib nañ ko ndax bi mu noddee rek xam nañ ne suba jot na wala mën naa gaaw leen ci julli waay ñëw leen waay julli gannaaw bu noddee ba noppi lu jaru ko ndax nodd bi rek xam ne na li mu bëgg a xam le wala nu yàq fil adaani ci nodd ga baax yun ak mbewte la waanti daawun tadi ak jalgati idd ngir badaa feeñ na min shuruti man bokk ci sarti ka nga xam ne yu as dinu dana nodd an kaana mu nekk saaliman di aji mucc minal alhaani ci ay yàq wa xaarifan tey aji xam bil waqti ci waxtu wa daa itqaanin tey boroomu xereñe neekat kay noddu war naa fexe ba xam baati nodd yi bu wér a wér ba nga xam ne bu ko dee wax du ca juum waaye di noddu di yàq baati nodd ga moom ëpp naa def lool dañoo bëgg ki noddu xam baat nodd ya bu wér a wér boole waale ca xamaali waxtu wa nga xam ne it ca la war a yëkkati nodd ga waaw waaye bu fekkee xamu ko waaye day sukkandikoo ci ku ko xamit ba tey baax na waaye bu ko mënee xamal bopp waxtu wa nag xam gu wér a wér loolaa ci gan wa an yakkoon at mu nekk musliman di ab julit kooku am kay noddu faaw rek julit la war a doon ndax bu fekkoon da di bi yéefar mu ne na noddu jublu caa tuubaale itam dana jot a tudd ay baat ci nodd gi te du àggagun ci baat yi nga xam ne mooy seere ak njullitam waa xaqilan te aji xellu ku mel ab dof bu dikkoon ci waxtu wa julli jotee mu wax baat yi nam tëddee te juumu ci itam waaye daa fekk mu dof ba tey du baax du tax nodd ga mat kon sunna sañ sàkk woon amagut wa baalixan tey mu kàllaf mu kàllaf lañ bëgg mu noddu teewul nag gone bu fekkee ne day sukkandikoo ci mag mag moo koy xamal waxtu wa xamal ko noddu ga na muy noddee mu dem noddu ba tey baax na wa zakaran tey góor góor gi moom ab sart la ci ndax ne nga noddu ji yéen daa araam wa xaadiran tey aji maandu mu maandu nag moom dañ ko caa sopp rek waaye bu fekkoon ne kàccoor la day def lu aay itam waaye teewul fexe na ba noddul nam baaxi rek dara sikku ci rek du tee nodd ga baax tumma tarattubul mu addiniina topp toftalook way nodd ña xayrum moo gën min ijtimaahim seen dajaloo yaqinan ci lu wóor ñay nodd bu ñu limoo te du timis la ci gën rek mooy ñu toppante kee nodd jox moroom ma kee nodd jox moroom ma loolu moo gën bokk waxandoo ndax li ci ëpp buñ bokkee waxandoo rek am ci ñoo xam ne duñu sàmm seenug nodd ba day mujj mu am sikk bu dee timis nag moom duñu nangu tegaloo googu kenn nodd jox kee kenn nodd jox kee ndax loolu mën naa andi yeex a julli timis ca timis moom la tëgan rek mooy na kenn képp nodd su mënta ñàkk nag ñu koy xëccoo ne faaw ab lim ñooy nodd nag kon moom nañu waxandoo inna allazina naka ña nga xam ne addano noddaloon nañu lil mustapha ñel ka ñu tànn salla yàlla dool teer nga alayhi ci moom rabbana sunu borom ba sharafa te mu teral ko alayhi moo yàlla doolee nekk ci ñoom ñëpp ridwanu rabbihim ngërëmal seen borom maxa kulli saxaabati ànd ak mboolem saxaaba ya wa man ak képp koo xam ne tattabaxa xeñtu na leen wen ngi jéem a topp fañ awoon ñooñu xam sun juróom lañu siyaat mooy ku ñu wax siyaat wa bilaal ak bilaal moom siiw na xomaru ak xomar saxadun ak saxad kazaaka naka noonu awsun aws ñeex ma amul moroom alxuru yooyale sang nee na juróom ñii ñoo masa noddal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuute nañu ay daraja ndax bilaal moom daana ko noddal ci bu nekkee ci tukki ak bu nekkul ci tukki aw si itam nee nañu ku neexoon kàddu la ba mu jënd sax moo daan noddi ca màkka nga dolli ca nag siyaad ak xomar ak saad ñuy juróom awalu man aji jëkki koo xam ne ahda sa sos na al ijtimaax dajaloo fii ci noddu hishaamun hishaamun mooy hishaam baax da añ yu taaxa ci gannaaw bañ ko toppee def ko xalifa wa jaala te mu def allazina ña nga xam ne kaanu nekkoon nañu yutbitoo na di saxal tarat tuban ak toftaloo mu def leen yu addinoo na ñuy noddu jamaahatan mbir mu ñuy mbooloo bokk nag waxandoo ci noddu moom ku ñu wax Hicham moo ko sos moom moo fekkan ñi daan nodd ci tegaloo kee nodd jox moroom ma kee nodd jox moroom ma mu daal leen di boole ñu bokk waxandoo benn yoon def mbooloo loolu daal moom moo ko njëkk a sos moom Hicham gannaaw ba mu nekkee xalifa waxanduhum seenu lim nag waxta xilaafati Hichamin ci waxtu xilaaf ak Hicham talaasat ñett la xallafahum yoo xam ne bàyyi na leen gannaaw xayrul anaami ngeen ci mbindeef yi wa azdanoo tayit noddaloon nañu lil xulafaa ñël mboolem xalifa yi xayra xali nday xali yene waxtu wa xisaam di boole ay noddkat ñi bokk noddandoo ñett képp la ñoon booba te ñett ñëpp fi leen yonante bi bàyyi woon tayit ñett ñooñu kat noddal nañ mboolem xalifa yi ba mu des aliyu aliyu rek lañu noddalut wasiida dolleef na baadahoo ci gannaawam kadirun aji bari yan jëli joj dana feeñ kon bokk noddandoo ñetta ko cosaanoo waaye gannaaw ba nag la ab lim bu bari bu ëpp ñett di dajaloo bokk di noddandoo fa man araada ku bëgg nag an yu asdina mu nodd abadan faaw foofu kon moom yu zan yi day ñaareel lafzahu baatam ba kama warada naka mu rote ilal axirat ndare baat ba ci mujj walaw lafza assalaatu xayrum min an nawmu ak doonte sax day baatu assalaatu xayrum min an nawmu li man ñeel ka nga xam ne baata fanaan na da day yi fa moom dalaa bëgg xamal nag nañu noddee dëgg-dëgg mu ne la ku bëgg a nodd te aw yoon day na ko wóor ne mboolem baat nodd yëpp yëpp bu ci nekk bu ci nekk dañu koy wax yaari yoon ba mu des laa ilaha illallah baat bi ci mujj muy laa ilaha illallah moom benn yoon lañu koy wax waaye ba ci assalaatu xayru min an nawm ji ñuy wax ci noddu suba sax dañ koy wax yaari yoon waye ji dana dikke bi shahadatayhima ci seen yaari seere ya murajjihan mbir mu muy aji deltoo ixaasatan ngir merloo laxum ñeel leen bi afaxa ci lu gën a yëkkatiku min sawtihi ca kàddoom nga al awali gi aji jëkk jaxrun ci ak bi def bu ko defee nee na booy nodd buy fàttee ni yaari ashadu yi da nga leen njëkk a yëkkati del leen yëkkatiwaat nag yëkkati boo xam ne ca bu ñaareel ba lay gën a xumbe ci bu njëkk ba di sax du tee bu njëkk ba xumb waaye nag na nga koy yëkkatee ca bu ñaareel ba moo war a gën a xumb wax yi mu njëkk wa jaa si man mbir mu muy aji maas mask ak nekk axira kulli jumlatin mu jub bépp jumla mu laa si man mbir muy aji taqoo loola jaa si man day firi mbir mu ngay aji jasam ñi jàng naxu ñooy wax lu mel noonu waaye lim juulu fii rek mooy booy noddu fa sabbaat di daaneele nga def fa masque néeg te bañ faa def masque gëfa dëkk